salaamaaleykum yaa booy nuyu naa la. ñu ngi lay fay doomu jigéen ñu ngi lay fay bu baax a baax. yaa ngi ci jàmm. maa ngi si man sant maa ngi ci jàmm. tur bi nan la. man Ulay laa tudd. Ulay lan ak Papa Sow. Papa Sow sama rakk la sama ñeenteelu rakk la. d'accord ginnaaw démb fi la ñu toogoon ñëw bokk seetaanadu ak yéen ñi nga xamante ni moo di combat bi naka ngeen ko dundee ak ban yëg-yëg ngeen am. ah ni ñu ko dundee mooy xanaa ñu félicité Siteu. Mm-hmm. yàlla may ko ndam bi jikko. Mm-hmm. Papa Sow tam na góorgóorlu entraînement ku bëgg ku ne yaa ñàkk yal na ko yàlla fal cat te mu góorgóorlu entraînement xale bu yaru la yal na ko yàlla cat ku bëgg ku nekk yaa ñàkk munoo bëgg-bëgg tey rek mu sotti tey tey déedéet mu nekk na góor góorgóorlu jàpp entraînement baax a baax a baax sant yàlla sant juróom-ñaari sëñ Babacar ak juróom-ñaari sëñ Fallou waaw Siteu nag moom yàlla na ko lam ni jik yàlla na loon njiglaayam na mbër moom yebal nañ ko ni ñu ko waral yabalee ngemb ko ni ñu ko waral ngembee mhm. mu def li mu war a def yépp mhm. xañ na ku bëgg yaa ñàkk su boobaa waa mhm. d'accord gis nañu démb dafa annoncé ne dafay bàyyi li nga xamante ni moo di làmb ji nag wax dëgg yàlla nag ñun moom du doon Sina sago rek rek rek rek ji du ko bàyyi waaw xañ na nag démb ni mu demee woon moo tax mu ne da koy bàyyi mais ah ñun daal xañ na daal loolu la mooy waxam mais li ma ko bëgg a wax na lu yokk entraînement am na góor góor lu xañ na xolam moo kii démb xam nga mu ne day bàyyi mais moom bàyyam du na arrangement ñun ndaxte lu ñu am tey ngir yàlla ak te ba mooma waaw lu ma mënta am man mii géejawaay laa dëkk depuis bërki dem ba léegi maa ngi ci kër gi fi laay fanaan fi laay yeew fi laay yendu lu ma am lu ne chaque weer bu dee mu yónnee ma xaas bu yeex taal la may jox boole koo courant ndox mhm. chaque weer bu dee mu jënd ma ravitaillement mhm. balaa sama ravitaillement di jeex beneen ravitaillement ñëw teguwaat ci kawam mhm. sant yàlla kooku duma wax ko wax mu bàyyi ko mu sax mu bàyyi làmb ndaxte lu bëree bëri moo may jàppale moo may dimbali waaw yow sa bëgg-bëgg bokk na ci mu continuer làmb te xam ne làmb mbiru góor la lamb mbiru góor la bi sama borom kër wàccee liggéey fii ak trois ans lépp ci loxo Papa la lépp ci loxoom la kon ba bàyyi làmb boobu arrangé wu ma du sama arrangement na góor góorgóorlu te defaruwaat dañ koy ñaan yàlla mu góor góorlu te defaru mhm. waaw yàlla baax na waaw merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te maa ngi gërëm mhm. Mansour Ba mhm. yàlla na doon njiglaayam Mansour tam xale bu baax la xale bu yaru la yàlla na ko yàlla defar mu jëm kanam kenn bañ koo galgal ci ma barke Muhammadu Rasulullaay ci barke juróom-ñaari sëñ Babacar si ma yaakaar waaw sant gërëm